ñoo ngi waajal départu caravane Cheikh Bara Ndiaye voilà comme ni ngeen gisee journaliste yaa ngi nii journaliste yaa ngi nii waajal caravane bi ñoom Ousin yi ngi noonu gaa yaa ngi nii journaliste yi ñoo ngi waajal caravane bi da yaa ngi noonu borom solution TV. waaw assemblée nationale la ñu soxla 100 pour cent tey ñu ngi ànd ak. kon jooy eh kon jooy kon jooy ak ca sama gars yi voilà gars yaa ngi waajal fi mu nekkee di caravane bi ah. ñu ngi taf fii Cheikh Bara am yéene yëngal comme ñëpp gars yaa ngi préparé gis ngeen oto yëpp yaa ngi rangale waaw Cheikh Bara a ngi waaj oto yaa ngi noonu dafa jeex. Oh. voilà gars yaa ngi bu baax a baax. génn. voilà gars yaa ngi waajal. oto yaa ngi oto yaa ngi ne direction caravane Baara Ndiaye ak ñu ngi waajal caravane bi gars yi takku neen takk neen jaajëy yi gars yi a borom oto yu baax yi te ñëw si mu jox la oto rek xamal na eh, eh, amoo dara walla mu ngoog dafa jooyal tuuti si naa jooy <laughs> yes gars yi añ nañ ba pare dañuy dem waajal caravane bi yëpp a ngi préparé ñoom it Bébé Paa ngoogu star star planétaire Bébé Paa